internet yu seen série TV maa ngi leen di nuyu di leen jaajëfal di rafetlu bu baax a baax ni ngeen di àndee saa su ne ak sunu ay programme tey seen rubrique décortique série famille sénégalaise épisode 106 la leen andil ñu door ko ak séquence bu njëkk bi ñu gis ni ki nga xam ni moo di àll moom nag jamono ji wóolatul kenn ndax jàpp na ni rek batóor wala ay allier wam à tout moment rek mën nañ def loo xam ni day yàqal nit ñi te nag ni mu ko waxee noonu rek la amee ndax gis nañu ni sooda dafa ñëw ngir rek wax ak batóor nan la mën a def def rek ngir briser li nga xam ni moo di sëyu ngóone ah, mu mel ni kon ki nga xam ni moo di batoor moom sëyam bi tas da cee bëgg moroom ndax jàpp na ni rek moom su amee defet ñëpp a war a am defet ñu jàll ci sagar sagar nag moom affronté na sooda sooda nag mooy belle-mère ki nga xam ni moo di euh, ngóone daal na koy affronté ba noppi nag xamal ko bu baax a baax que ni bu mu laal euh, magam di ngóone ah, si noonu mu daal di ñëw tamit affronté batoor mu mel ni kon moom sagar jamono ji lay demee ni yàqoon na ko mu daal di koy defaraat ndax ku ne xam na ni moom moo doon jàppale Batoor ci lépp loo xam ni doon na ci nekk ñu jàll ci àll àll nag moom wax euh, mu ngi waxtaan ak ki nga xam ni moo di sagar waaye nag xamal na ko bu baax a baax euh, que ni yàlla moom moo fi nekk pour ñëpp euh, mu mel ni kon donte tiit nañu waaye itam wekku nañ lépp ci seen ci loxo seen borom ndax xam nañu bu baax a baax que ni Batoor am na lu muy wàcc mu mel ni kon li doon gën a métti mooy ñu ñàkk cee xam dara waaye puisque xam nañ ni Batoor mu ngi ci kawam lépp lu mënti xewit dinañ xam ni loxo batoor Bator Jugusa ñu jàll ci sooda moom nag moo ngi wéy di manipuler doomam euh, Lamine mu bëgg rek ki nga xam ni moo di Lamine euh, daal di gëm ni euh, ki nga xam ni moo di Ngóone dafa am dafa am copain mu mel ni kon moom ki nga xam ni moo di sooda jamono ji lépp loo xam ni Bator teg na ko rek moom moo ci ànd ak moom ndax moom li mu bëgg rek mooy moo doomam keneen rek du ci bokk ñu jàll ci maar maar nag moom gis nañu ni mënul sax nelaw ba yàndoor lépp nag ndax Bator ndax xam na ni Bator du bàyyi ndax Batoor du perte ba pare euh, di toogee noonu dina fexe rek ba am euh, morom waaye Mariatu nag mu koy rassuré euh, di ko xamal ni yàlla ñëpp la fi nekkal te it nag du nangu benn yoon injustice mu mel ni kon moom Mariatu comme toujours rek lépp da ko wékkaat ci loxoy yàlla ndax ku ne xam na ni lu dul yàlla neen la kon yaakaar naa ne nag wékku ci yàlla amul rek loo xam ni moom moo ko gën ñu jàll ci Lamine Lamine nag moom mel na ni xam na dëgg bi ndax ki nga xam ni moom la ñoom yaayam engagé pour nag mu nekk copain wu ki nga xam ni moo di ngóone kookee ñëw na daal di wax lépp Lamine ndax Lamine lu baax li nga xam ni moom la nekk di def ci koñ bi mu mel ni kon parfois nit boo nekkee ci koñ wala nag nga nekk ci gox war nga nag am nooy doxalee boo seexee ñëpp jàmm dina tax bis bu ñuy def ay ñaawteef ñu daal di la ci épargner ndax ku ne xam na ni euh, xale bi nga xam ni mooy xale bu góor bi ñu engagé euh, bu dul woon ak Lamine dina tas sëyu jàmbur waaye nag Lamine teraanga bi nga xam ni ji na ko ko moom moo tax du nangu benn yoon indil ko ay jafe-jafe Lamine nag xam na loolu ba tax nag mu jàpp ni yaayam bugg ko ndax la bëgg du la indil ay euh, problème wala nag la jéem a indil ay tolof tolof ndax ku ne xam na diggante jëkkër ak jabar euh, ni mu sensible euh, kon yaakaar naa yaay bu bëgg doomam du jéem rek di jaxase ay jëkkër ak jabar ñu jàll ci mère Soda mère Soda nag moom bëgg na nag daal di abandonné bàyyi waaye Batoor moo koy gën a poussé mu mel ni Batoor moom nitu fitna la nitu seytaane la ndax moom lépp lu muy dugg rek moom du ci dellu ginnaaw fit lay demee waaye Soda a nag moom Soda itam lépp lu mu def moom la neex ndax magu jëmm la te it nag Lamine doomam la moom yaakaar naa moom moo war a bañ keneen di jóge fee di ko jéem a jaxase ak doomam euh, loo xam ni day indil doomam a problème ñu jàll ci Batoor Batoor nag moom daal dinay affronté Mar carrément nga euh, xamal ko ni ko euh, rek ni tànk mi ngi ci kër gi lu ko neex rek lay def waaye ki nga xam ni moo di Mar itam xamal na ko ni këram la nekk te nag nit boo nekkee ci këram responsabilité sa responsabilité ci la nekk na ko ci ngóone mu daal koy eh, défier mu mel ni ki nga xam ni moo di maar moom it eh, xam na bu baax a baax que ni Batoor eh, toogul te it nag moo toog rek dina la ki nga xam ni moo di ngóone ay jafe-jafe ñu jàll ci beneen séquence maar nag moom dafa jaaxle bu baax a baax ba tax nag muy laaj sagar ndax amuñu nouvelle lu ngóone mu mel ni génn bi nga xam ni Batoor génn na ko ci fajar bi tey na xelam tey nag jàpp na ne du dara rek lu dul jéem a fexeel ki nga xam moo di ngóone ñu jàll ci beneen séquence ñu gis ni Mariatu comme toujours rek waneeti na ni moom femme exemplaire mère la waneeti na ni yaay la te it nag wane na ni eh, jigéen bu baax la ndax yaakaar naa bu doon keneen la tey bu ko jëkkëram laajee deux ngir yóbbul ko wujjam dina am neneen nu mu réagiré waaye nag au contraire da cee eh, kontaan eh, mu mel ni kon comme moom bi nga xam ne moo di Mariétou comme toujours rek moom daray àdduna fëqul bëtam moom leen rek la bëgg te mooy ñëpp daal di nekk si jàmm ñu jeexal ak moom Mariétou moom nag gis nañu ni gént bi nga xam ne gént na ko yaayu ñoom maar nekk na loo xam ne lu ko la Ngoné ngir daal di ko koy wax waaye nag ñu ngi woo Ngoné mënuñu koo jot loolu nag nekk na lu ko tiital ndax jàpp na ni ki nga xam ni moo di ngoone mën naa am problème comme ni nga xam ni noonu la ko ko gént bi waxee kon mbokk internet yi euh, ñu yem fii ci épisode 106 bu famille sénégalaise ñu jox leen di daje si beneen épisode waaye laata boobu woy leen di abonné ci seen série TV te bu leen fàtte ba si cloche notification bi pour ngeen di jot suñu vidéo yi ngeen jëf